bisu doom lan nga sentir déjà. ah dama mbégte rek. waaw mbégte rek wala moo jot li ah. la. rek mbégte rek bég naa trop trop trop trop sama doom waaw bég rek. tey lan nga mën a def ci moom ci témoignage ci bisu ah, mbégteem bi nga xam ne moom la ko yàlla may. ah mën na am sax lu raw lii. waa ndax euh, seen papa yar na leen fu mu leen war a yaree. seen papa musul xàddi mukk ci ñoom mosuñoo musuñoo manqué dara musuñoo wuti lenn fenn ndax seen papa waaw yor na njabootam yar na leen fu mu lay war a yare moo tax euh, def na si ñoom diine def na si ñoom euh, yar ba tax na fu ñu dem rek ñun suñu xel dafay dal fu ñu dem suñu xel dafay dal ndax ay xale yu yar lañu ay xale yu baax lañu ay xale yu am diine lañu lu ñu am itamit bokk nañ ko ak seen ay waajur moo tax ci kaw ci kanam la lekku ñu mukk bàyyi seen wayjur lu ñu am rek bokk nañ ko ak seen ay wayjur waaw moo tax ci kaw ci kanam rek lañuy dem inshallah ma ngi ni tok sa wette bo amone message bo leen di denk lan lay do ah ñaanal leen dag yalla la fa leen cat deja yalla la fa leen cat la fa leen cat musal leen ci pexeb non musal leen ci musiba bala musal leen ci lepp lu lu ay te wax leen dag ñu leen euh, sey neexul sëy neexul da ngay gis lu neex da ngay gis lu métti dangay gis lu métti dangay ngay gis lu neex mais ñu ku si nekk rek daal moom mi jigéen mu muñ moom miy góor itamit mu muñal soxlaam ndax euh, xëy na nee nañu man muñ naa de mais sama muñ papaam bokk na ci ndax jàppale na ma bu baax a baax a baax a baax comprendre na ma bu baax a baax a baax itamit Euh, góor dafay comprendre jigéen góor day jàppale jigéen te jàpp papaam def na loolu ci man te loolu papaam def ci man bëgg naa mu def ko ci soxnaam seede yàlla bu mu bàyyi soxnaam benn yoon na ko jàppale soxnaam tamit na ko muñal nañu muñalante rek sëy muñ rek la